mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi fii ci ndam daaru alimul xabiir ngir teeru fi li ñu ko baaxoo def gan gu mag goo xam ne day seet si Serigne Mamor Mbacké eh, muy consul bu ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal moom la xaar ngir mu ñëw moom teg bëtam ci liggéey bu réy bi nga xam ne Serigne Mamor mu ngi koy liggéey di ko def ci éducation ndax mbokk yi xam ngeen ne éducation lu am njëriñ la kon li nga xam ne moom la ko euh, Cheikh Mouhamadou daa bàyyi woon mu indi ko ci niveau universitaire ba ay xale di fi génne di peeg seen diine it di doon ay borom xam-xam yoo xam ne ñëpp nangul nañ leen seen xam-xam barab bii nag ci la consul bi ñëw wara seet si Serigne Mamor danañ dem ci classe yi waaye dana ñëw ci euh, chantier université bi auditorium bi nga xam ne nii wax naa leen ko 600 place dana ko def au moins te am na beneen boo xam ne moom lañ ko jumeleel ñoo taxaloo liggéey baa ngi nii presque yegg na yaakaar naa ne dinañ ko inaugurer euh, balaa euh, étudiants yi di ubbiwaat muy barab bu moderne boo xam ne ni jumtukaay yi nga xam ne ñooy yi gën a xarale ci lañ koy def lii nag yaakaar naa ne sagu Touba la te it nag sur fonds propre le Serigne Mamor di defee lii yëpp kon jàpp naa ne bu fi consul bi ñëwee amul luñ ko mën a wan lu gën lii nga xam ne mooy lii di teeru ak di taxaw gone yi kon ñu ànd ak yéen rek gannaaw visit bi danañu déglu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko fi ak kàddu yi nga xam ne Serigne Mamour dina ko yëkkati ak ay collaborateur am Hallelujah. Al I really appreciate the opportunity to visit the university, to visit the organization, uh, and to learn more about what, the work that you're doing here in Senegal. As you know, the importance of education is critical to American values, and we have a lot of programming here that supports the rights of all children to have an education, and we appreciate the work that you do in that area. Our main concern here today, we're here today visiting primarily American citizens, talking about the services that we provide to American citizens, but also finding out we know that there are a lot of Americans here in Tuba. In fact, we've seen a big increase in the number of passport applications and birth certificate applications that we see coming from this area. So we felt this was an area that we could really come engage with you all talk to you about the Americans that you see in the community, what, problems and challenges they might face here, so that we can find better ways to serve them here. Of course, the embassy also has a very strong partnership with Senegal. We've had a partnership for many years. We'll be celebrating the 50 anniversary, 60 anniversary of that partnership next year. Uh, and we strongly believe that a prosperous Senegal is good for not just the Senegalese people, but also for the American people. And to the extent that we can find ways to continue that collaboration, uh, that's where our interest is. thank you so much for your warm welcome. Thank you so much. I'm sorry I won't be able to stay longer. My colleagues will stay. They'd like to see a little bit more of the school and hear more about your programming. Uh, and I look forward Euh, li leen fi andi woon mooy euh, ci euh, dañoo gis ne ci biir Touba ak lu ko wër bari na ay américains yoo xam ne nii ñoo fi nekk bari tamit ñuy def ay application passeport ak ay application carte américain donc ni ñuy dundee fii ak ni ñuy jëflante ak waa dëkk bi ak li ko wër moom moo leen fi taxaw na ñëw Euh, mais tamit dégg nañ euh, liggéey bu bari bi ngay def ci wàllu xam-xam ci wàllu njàng mu ñor leen trop euh, donc projet yi ngay liggéey lu bari ci loolu daf leen a ñor parce que loo fa dafa méngoo ak li ñuy wax valeur américaine yi ci wàllu xam-xam ci wàllu jàng donc mi ngi la ci rafetlu bu baax di la féliciter bu baax ci liggéey bu rafet bi ngay def ci wàllu xam-xam. mi ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci welcome bi ci ci bienvenue mot de bienvenue bi ngeen ko jox. te di rafetlu bu baax tamit liggéey bi ngeen def ci ci wàll xam-xam mi ngi koy gis bu baax ñu ngi koy dégg tamit lu bari di ko rafetlu bu baax a baax.